bu mbokk internet Leewtoo TV di leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal yam contentement ak mbégte janook yoon chaque jour comme ni ñu koy defee actualité lamb la ñuy topp waaye jotaayu lamb la ñuy topp laataalool loolu nag tey la 8 mars ku ne xam na ne 8 mars jigéen ñi ñoo ko moom 8 mars jigéen ci àdduna ñëpp a ko moom suñu yaay suñu mag yi suñu xarit yi suñu raq yi ñëpp a ko moom maanaam kullu jigéen ci àdduna rek dañ leen jaajëfal ci bis bii da ci ñaan jàmm nag ñaan jigéen yi comme ni nga ko waxee yàlla na jigéen yi dem ca kaw a kaw a après góor ñu nekk deuxième place loolu dara ca noonu nag damay nuyu ki ma sama invité ki ma toogal di Forza Forza bu Fass dama koy nuyu bàyyi ko ma nuyu internet yi Forza maa nuyu waa soxna si maa ngi lay fay bu baax di la ziar di kontaan ci yow di nuyu Sénégal gi yëpp aussi. Mm-hmm. may profité occasion rek di wax di félicité jigéen ñëpp di leen ñaanal seen bi di ko jaarale sa loxo. Mm-hmm. naan seen biir. Mm-hmm. di kontaan trop di nuyu Sénégal gi yëpp. rawatina askanu làmb bi. <laughs> Forza ngi noonu nuyu na axlu làmb waaye nuyu na ñëpp nuyoo bi teg na ko sama loxo naa ko teg ci loxo jigéen ci àdduna bi yëpp ci noonu nag kii di Forza ginnaaw bañ ko nuyoo Forza fan nga ne fan la Forza ne. Oza mu ngi fii fi ngeen ko fekk nii maa ngi Ndakaaru Ndiaye ak Bargny ak yéen. waaye da ngaa làqatu ginnaaw ak jëndee rek toor. ba nga daane ba léegi la la ak Ngor ak Wakam Yoff. foofu yëpp. waaw maa ngi foofu daal fi laa nekk diggante Kampfer daal ginnaaw moom. Mhm. Mm. ci nekk fu ba nga daanee ba léegi kenn gisatul benn sortie Forza gisatuñ la fenn lu xew. waaw man maa ngi nii maa ngi sama ruux rek toog jàpp sama bopp. Mhm. parce que xam nga àdduna dafa am nu muy doxee. Mhm. mooy que la plupart wax. mën na bëri. te njëriñam du bëri. mais tekk boo gis nag am na lu muy wax. waaw te ku ragal fi nga ku ragalul foo jëm ku ragalul fi nga jëm jarul ngay def mbir wi yenn yi mën ngaa jàpp sa bopp rek. mais gis dañoo gisul nga def benn sortie gis ñu nga dem làmb gis comme ni ko mëri def dem yëngal xëpp kaani affaire yooyu noonu jaxase lu tax loolu lu tax Forza day ne toog rek jàpp ñàmburam. waaw Forza euh, nature noonu la mel moom moom xam naa ne moom. day def li mu war a def rek après bu loolu weesoo mu jàpp boppam. Mhm. mu daal di bëree bëree bu rëy diggante ak nga xam ne mooy Pakala Forza dellusiwaat ci làmb dellusiwaat ak beneen façon Forza fa nekk entraînement yi balaa sama bii di ñëw rek. ñu ngi ñu ngi waajal ñu ngi liggéey ndànk-ndànk. Mhm. doucement doucement. Mhm. parce que ko xamagul fi nga jëm da ngay xam ni ngay doxee. da ngay das fanaan. waaw das fanaan mënul mënul ñàkkal parce moom moog ñoom ñoog euh, entraînement. moog ñun ñoo dëkk te ñoo war a dëkk. Mm-hmm. ay tontu Forza la waaye tax ma wax ko ndax fan nga toll ci entraînement yi xale ba ca géejawaay ñu naan ko Aliou Seye numéro 2 dañ ko invité dafa ne ki ma bëgg a bëreel Forza la ak keneen ak mais Forza moo ma na ko nag fi làmb toll ak li làmb yu doxee. ak li ma bëgg te mu nekk ci biir seen biir kër ndax dañ na boo bëggee dara ci biir kër nga am koo fekk ci bunt bi foog nga lijjanti ko kon bu ñu loolu boolee rek mën naa am làmb mën nañu boole incha allah. waaw fi ma jëm ñëpp xam nañ ko Sénégal a ko wax mais du man. non fi ma jëm moom du ma ko wax moom parce que ñëpp xam nañ ko. mooy que xam nga tey ku xotti xool xoolu Forza moom la dëgg dëgg ngay fekk mu toog ci. xale yi xam nga mbëri jëlandoo nañ ko euh, Reug Reug ba mu daanee Lac la wax yow ba nga daanee Lac de Guiers wax lan moo war a Lac de li war a war de Guiers bi peut-être de Guiers def naa ñoom ñëpp maa leen ñaa njëkk bëri ah mm-hmm. man bi ma ñoo laaj Lac de Guiers mais aw sax di laaj ay yeneen i mbër ak yu demee noonu quoi du rek man ci loolu rek laa mës a nekk waaw man supporter suñu liggéey benn affaire damay taxaw pour loolu parce que loolu moo ki nga xamante ne mooy Alioune Seye numéro 2 moom mi nga ne moom moo nekk ci buntu bi moom nee na ginnaaw boobu mu daanee magi làmb yi isaape ba mu ñëw da koo dóor mu daanu jos waxi noppi nee na yow la ci bëgg a teg est-ce que nangu nga loolu man damay magu làmbam moom man dama magu làmbam de mhm. moom bi muy bëreeg ndëf man maa bëri ak moom man maa bëree après mhm. mu doog a bëre ñu bëreeg ndëf mhm. man maa bëree mu doog a bëre man dama magu làmbam de ah, jàpp ne magu làmb yi nga dafa juum dafa fàtte xam nga am na ñoo xam ne dañuy xaw a gëlëm liggéey moo toll fenn fi rek waaw ma jaar fu nga xam ne ñoom jaarawuñu ko. Mhm. te moom tamit aussi champion la. Mhm. parce que beneen bi muy bëri ak Ndof le 7 janvier 2007. Mhm. si laa bëri ak Djilor. waaw moom sama confrère boobu daal di koy ne est ñeme nga xam ne mooy Forza mu ne Forza amul li laaf du. du du xam nu ma ko mën a waxee maanaam nit kese la daal nit kese la moom jàpp na ne yow war ngaa mën a bokk ci rangam bi muy rangal noonu. moom juumul de parce que nit man yàlla moo ma sàkk. Mhm. mu juddoo ci ñaari doomu aadama. Mhm. nekk ci dëkk bi awma bekken bu nit amul awma bët bu nit amul. Mhm. awma jëmm ju nit amul. kon awma lu nit amul. li nekk ci nit moo nekk ci man kon bu nelu nit lan laa war a doon. soxuma ay laaf gisuma ko ay loxo laa <laughs> xale bi ñeme la. Ah, non moom moom. moom du ma tontu si moom sax parce bu may tontu si moom day day day lii quoi parce que du mbër boo xam ne war naa wax ci moom. Mhm. da koy may kot da koy bañ a may kot. non àdduna moom. Mhm. nit ki loo ko defal lu ne rek. Mhm. bu la ko fayul yàlla fay la ko wala keneen mu jaar ko ci keneen. du dëgg. kon amuñu lu ñuy mayante ak lu ñuy xëyante parce suñu borom moo ñu sàkk. sàkk ci ñun destin. la ñu mënul effacer. Mhm. tey gi su yàlla dogalee ne man dinaa bëri ak moom ala kulli dinaa bëri ak moom. kon lu may wax ak lu may jëf rek dama koy xoolaat. Mhm. waaw bu fekkee dañu war a bëri. ala mhm. kulli aadama a dañuy bëri. mooy la dëgër de mi xam ne dama ko topp chaque jour naan dama war a bëri ak moom. bu fekkee ne làmb yàlla dogal na sama diggante ak moom war a am. ala kulli aadama am ndax moom depuis 2008. laaju ma de 2008 laa njëkk dëkk la dëgër de. ma ne ku daan tafaagee la daan a ay ay ndog daloon ma ci diggante 2009 yooyu. Mm-hmm. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. mais laaju ma ko tey de ñun làmb ñoo jogandoo maa ñoom la déggee de ñoom Balla Gaye parce que ñoo bokk même alliance. ñoom ñoo ma jiite woon tuuti rek. xam naa nag aussi làmb tey jii làmb tey la gën a tey a génn. ndax tey en ligne dafa bari. poste en ligne bari na boo yëngatoo rek dangay fes fës. da ngay fës. loo wax tey musul ñëpp xam ko. du dëgg. loolu moo waral rek tey gi yu bari tey nit ñi di ko ràññee. mais démb mënul doon tey. Mhm. waaw mais si la xool pour mën a gérer tey. Mhm. te noonu nag ki nga xam ne mbébétam mooy mu bëri Forza waaye Forza mbébétam mooy mu bëri Lac de Guiers numéro 2 la la moo topp ko depuis booba léegi mbëri dama gis dañoo am ba pare soog koy laaj ci loolu nga nekk wala. man dama am jot boobu déggoo lim la wax sax. Mhm. bu fekkee bëgg nga bëri ak moom sa bëgg-bëgg fu mu ne nii ci loolu laay nekk man pare naa ci Alioune Seye waaw mooy jogal mbër bi ngay wax noonu. Mm-hmm. mbër bu jogal mbër ba foog na yaa ci ne suñu borom bu fekkee moo dogal ne mbër boobu laa jour yi moo lay daan. Mm-hmm. dara mënu ko dindi. Mm-hmm. fii suñu borom moo fi nekk. lu waaye def si nit rek na ko xam. man aw ma jot boobu. sama ni ma yare sax yàlla bindewul noonu. su ma sañoon tey duma doon mbër leneen laay doon. waaw que mbër boo xoolee ba ci biir. day am lu mu wàcc boo boo deful attention mu wàññi sa imaan. te imaan dafa am doole ci doomu aadama. Mhm. waaw mu ngi noonu. ci waxam jooju laay laay dugg daal pivoté ba nga duggee ci làmb ak léegi lan nga ci mës a dund lu la métti. mosuma dund lu ma métti. Mhm. man làmb gis nga ma naa ci lu ma métti de. Mhm. ba fenn fi déedéet mais du ñàkk am loo xam ne day jaar. mais du ko sax jàpp. parce man maa choisir kenn bëggul woon man maa bëggoon doon mbër. gannaaw bi ma dégloo. boo taataanee sama nopp ci biti ku nekk ne man demal bëri ji demal bëri ji ma choisir doon mbër kon foofu amul looy xool lu lay naxari la plupart bu fenn fi waaw mosoo ko regretté tamit nekk mbër regretté non mën ma ko rëccu parce que àdduna déggoo si nga xam ne destin la doomu aadama li yàlla dogal suñ li yàlla suñu borom dogal ci nit ki allah kulli almin ci yoon boobu lay jaar fi muy mujjee moom rek moo ko xam suñu borom rek moom moom moo xam moo kon amuñu lu ñuy rëcc parce que fi ñu jaar nii am na lañ fi emprendre am na lañ fa war a comprendre. Mhm. Mhm. ci comme ni ko waxee rek moom amul làmbam ci sa combat yi nga bëri yëpp ban combat moo la ci gën a neex. sama combat yi ma bëri yëpp ban combat moo ma ci dàqal. Mhm. man sama combat yi ma bëri am na combat bu ma neex de. dina am bu la neex dina boo xam ne moom combat bu moom sa combat lay nekk yow yaa ko moom sa bopp. non dina ñëw. Oh. <laughs> dina ñëw dina ñëw ban combat moo la ci gën a metti. Euh, combat bi ma gën a metti. Hmm. combat ma gën a metti li ma man li ma metti yombul ah. mbaadu mais xamoo amaana am na combat boo xam ne. Hmm. ni mu demee neexuma woon quoi. Hmm. mooy sama diggante ak pakala bu njëkk bi. parce que di bëri nit. nga jàpp na yaa nga gëm na yaa ko mën. ngeen bëri. nga dominer ko pendant combat bi yëpp. Mhm. mu am ndam ci yow. loolu neexul quoi. dafay metti. Mhm. waaw mais mën la metti da nga ne suñu borom mooy dogal keroog moom la keroog moom la dogaloon ne moom mooy am ndam. Mhm. bu fekkee dama jël ne boobu dafa metti kon damay jël bi ñu bokk ñun ñaar ma ne daf ma neex. <laughs> waaw parce que coow yi dafa bari yoon. ma daan ko wax ne que dama lay daan mais mën ko woon gëm. suñu borom dogal ma daan ko te sonn ma. revanche waaw. kon boobu tamit neex na ma quoi. waaw. kon mën naa ne paka la aller ak retour bi combat boobu mooy bi la gën a neex waaye mooy bi la gën a metti hmm. fi làmb toll ne la moo ci sa gis-gis tolluwaay làmb toll tolluwaay làmb tolluwaay làmb tolluwaay làmb tolluwaay làmb làmb tolluwaay am ça va ndax mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi am ay tànk mhm. mu ngi am ay tànk gi mooy xam nga àdduna moom nit moom da ngay xool ni ni ni àdduna di doxe rek mhm. tey gi tey làmb mu ngi dox amaana doxul ni mu war a doxe mhm. ci nit ñi gis-gis bi ñu am mooy que mbër bu nekk ba nga gis sa bopp ci biir à cent pour cent mhm. mais man daal li ma gisee làmb mooy mu ngi dox parce que am na mbër yoo xam ne ñu ngi bëri tout le mhm. na mbër yoo xam ne aussi ñu ngi semé neexul ñaan nañ suñu borom mu def ci xewal ba mbër yi mën a bëre promoteurs yi bëgg naa tamit ñu tëgg mbër yi quoi mais mm-hmm. làmb ni muy doxee daal ça va man pour man quoi ça va. Mm-hmm. mais nag ñu ñaan ñu yàlla suñu borom nag gën a def si xéwal ba mu gën a dox. quoi am ay tànki kanam. am ay tànki kanam. waaw bu baax quoi. Mm-hmm. buñ ne làmb nag dañuy dugg ci nga xam ne ñoo ŋànk làmb mi CNG doxalinu CNG ci làmb ji ndax nga ko gisee en tant que lutteur. doxalinu CNG xamoo fii dara yombul àdduna yombul. ndax dañu amoon bu fi jiitu ñu ngi koy nuyu la passage bu ñu Père Alioune mu liggéey fi liggéey boo xam ne remplacer du yomb. Mm-hmm. parce que liggéey bi mu liggéey Baye Cheikh pour dire vrai. Mm-hmm. remplacer du yomb. Mm-hmm. du du yomb. du yomb gi nag mooy parce que bari na lu mu fi doxal. bari na yu mu fi teg yoo xam ne tey si la ñuy sukkandiku pour mën a dem ci kanam. moo tax tey jii bii mënoo ko juger. parce que day doog a ñëw. te yàggu fi lool. mu ngi jéem doomu aadama da ngay rek quoi yàlla suñu borom mooy mottali lépp. li muy jéem am na si ànd am na si àndul. mais man du ma si mën a ko juger parce que doomu aadama kàddoom la am. parce que bëgguma juger tey bu subaa ma rëcc ko suba mën a tere yaa fi ne. fekk ne aussi démb waxoon a ñëw. bi tegugul si yoon. Mhm. à 100 pour cent. fekk moom mu ngi xool yoon bu mu ko tege ci yoon léegi bis bu tegoo ci yoon fekk nga waxoon nga dara su kersa day dox seen diggante rek quoi mhm. te doomu aadama kàddoom rek la am mhm. moo tax mais ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom mi nga xam ne moom mooy orienté yàlla naka yàlla orienté ba mu mhm. ba sa bëgg-bëgg ci làmb lu muy yokk hmm, làmb moom bàyyi li mu yokk si biir si biir si bon côté quoi. yokk rek yow ci sa bëgg-bëgg yow fu mu ne personnel laa wax yow sa bëgg-bëgg. nga ne man kat sa su ma sañoon mu yokk lii su ma sañoon mu yokk lii. un peu fou quoi man fi mu toll nii amul da nga koy ñaanal rek mu dox ci jàmm. Mm, waaw waaw hmm? parce bu nekk loolu rek booy xew quoi. d' accord yow yaa ngi si daan làmb xam nga làmb combat VIP ni muy jeexee fan yi ñëpp di ko ñaawlu yow moo ci sa gis-gis. waaw mën nañ ko waaw ah, foofu waaw ah, merci si côté boobu parce que man bu ma sañoon. Hmm. Euh, man di d'accordatuma ci lii bi ah ay cinq avertissement combat bi jeex man d'accordatuma ci quoi parce que loolu dafa yomb gérer mm-hmm. man d'accordatuma ci quoi man moom su ma sañoon côté boobu ñu xool ay sanctions yi ñu ci dugal mm-hmm. te combat bi di dem mm-hmm. parce que nit ñi dañuy ñëw pour seetaan ay combat mën na ñëw seetaan ñuy combat mbër nekk fi di arrière génn un deux trois quatre cinq match bi jeex foofu kenn du xam kenn du comprendre dara quoi côté boobu moom man côté boobu ñu dindi cinq avertissement yooyu nañ ko xoolaat quoi. ñu dindi ko sanction mu bañ a nga ne li làmb li ñu ci bëgg mooy jël am dóor mu daan wala yéen dóor su nekk jël rek. waaye avertissement nekkul làmb yooyu cinq avertissement bàyyi jeex man mën naa jël xam ne tey jii forsa mi moo ma mën. Mhm. naa ko jël su ma gisul lu ma xam ma génne. génne waat génne match bi tas. Mhm. ab ma dem gérer sama bopp. Mhm. loolu yomb na quoi. loolu nañ ko xoolaat man loolu d'accord moo ñu xoolaat ko bu baax. Mansour Fall la ba bëgg neen sa diggante ak ak Reug Reug ba nga xoola bëggoo ko bu ko làmb laaje bon Baye Cheikh Forza bañul dara mhm. ko bañul ko bañul kii dam tuuti Alioune Seye moom <laughs> moom daa dégg nga daa jàpp daa xeeb Alioune ku bañul Alioune Seye Alioune de mu ngi jommal paa yi de non mbër kenn du xeeb mbër sax baax na Baye Cheikh mhm. mbër loo gis dafa am ko daax mhm. loo tey ji am na ñoo xam ne bu ñu xoolee yaas day nekk si ñoom. Hmm. mais boo tegee mbaxal bu tooy da nga xam ne moog yaas du benn. <laughs> ban moo ciy daal kon si mbaxal bu tooy daal <laughs> waaye. kon tey jii rek rek boo xoolee rek rek nga ne rek rek forza. Hmm. mais combat boobu di la ciy wuy hmm. mi ko tëgg li ci gis sa bopp. mais beneen combat boobu yoo xam ne. jarul sax après ngay def ay publicité. ñu ñu publicité seen bopp. mais c'est sûr. du benn. loolu sa déjà sans perte la. Mbadou. Euh, mais combat bu neex la nag parce que Alioune Seye 2 mbër la day bëre te temps gis muy. doon dafa dafa nekk ci lancé. Mm. Issa Pouye la dóor mu daan tekki zos nee na yow ci bëgg a teg. <laughs> fas yéene yàlla baax na suñu borom amul morom. fas yéene moom bëgg-bëggam la di entraîné di daal si fanaanal. fu mu nekk nii waaw dañuy fas yéene ñun li ñu jëm rek yéene lañ ciy demee. Mm. ñun yéene rek la ñuy def. Mm. waaw ñun loo andi rek ñun dañuy demee suñu yéene. Mm-hmm. yàlla moo xam. duñ wax ak nga xam te ba jeexal wax ji te duñ dugg fi nga te ne nii mooy fusion Fass Ndakaaru naka nga ko gisee. affaire bu extraordinaire bu ma yàgg apprécier kontaan ci bañ koy waxtaanee ba ni mu sottee ba ni ko yàlla dogale mu am nii bañ koy dund. macha allah ma am ci mbégte lool. Mhm. xam ne aussi lu baax lu baax la rek. Mhm. Ndakaaru bu fekkee dafa am écurie yi fi nekk ñu dokk si écurie yi xam ne ñoo ëpp doole. Mhm. tey yàlla boole ñaar écurie yooyu mu doon benn. tey gi loolu euh, loolu sant la loolu cant la. loolu man dama ci chaque jour damay sant ñi xam ne yàlla dogal na ñoo ko xalaat di sant ñi ko dox coono ñu ci daj xam ne yombul di sant ñi ko waral ba tey gi tax mu nekk bu perkat yi mi xam ne dañ ko doon dégg feneen di ko dégg ci ñu ndakaaru gi xam ne ñoo ko bokk ñun ñooy Cap Vert ñu koy dégg ci biir ndakaaru ba tey yàlla def ñu bokk ak moom ba ñu ba gunge ñu ci làmb yàlla sutaal ñu may ñu ci ndam mu ciy ànd ak Moustapha Guèye ak keneen ak keneen ñu nekk ci ginnaaw ko mën ñu waaw suñu président nekk Abbas Ndoye xam nga mm-hmm. ñu nekk di liggéey ci loolu di ñaan nag suñu borom gën ko yokk ba mu gën a avancé mm-hmm. loolu ndam la ak ak kontante mm-hmm. ak Sénégal goo xam ne ñëpp ci gis seen bopp ndakaaru ñëpp ci kontaan waaw kon yàlla suñu borom motal li des rek barke alxuraan mu nekk contentement ñëpp waaye yéen mbëri seen biir ndax ngeen koy dundee waaye nice mbër yi heureusement sax dañuy gis gisoo man tey gi euh, mu ngi mel ni ku mel ni Sibel dama mel ni dañu mës a bokk écurie cent ans. lu yàgg waaw. Mhm. loolu yàlla moo koy dogal yàlla mi xam ne mooy boole mbir. Mhm. avant ñuy ñëw sax mu boole xol yi. Mhm. te yàlla dogal na loolu ñuy ñaan suñu borom rek yàlla bu seytaane mës a dox suñu diggante suñu biir. waaw te ñu xam ne suñu borom rek moom mooy maye. suñu borom miy maye. te ñu yaakaar si moom ñun ñëpp. yàlla nañu accompagner. te li ñu bëgg mu ñu koy may te suñ ko xañee tam yàlla ñu may xolub nañ ko nangoo xam ne loolu rek mooy àdduna am la ak ñàkk saa bu ñëwee rek day bu amee day neex boo ñàkkee mu naxari mais saa bu ñëwee yàlla ñu may xol buñ ko téye bi saa di ko kontaan sax ba def ci erreur kon yàlla nañu ci borom may lu mën a ñëw rek ñu am xol buñ ko nangoo te gérer ko xam ne ñëpp dañu bokk la mais ku si nekk sa wërsëg rek ngay jël ku xam ne tey gi àdduna lépp wërsëg mooy ci écrit yeeg ci diggante kër yi yeeg. Mhm. ci diggante mbedd mi. Mhm. ak ku doon ak ci li nga nekk ak keneen ak keneen mhm. ku ci nekk ci li nga nekk billaay doo jël wërsëgu keneen sa mhm. wërsëg rek ngay jël saa sa wërsëg jeexee jeex na kon ñëpp mën nañoo nekk ci jàmm mhm. ku nekk yéen sa moroom jàmm te ñu ànd ci alxaq muy dëgg te bu subaa ka nekk am ndam ndax te yàggul te te a jàmm dund ko te mu doon dëgg nag loolu moo ci am solo balaa ngay tàggatoo lan ngay wax say supporter waaw supporter yi supporter damay di encouragé rek parce que boo amee mbër boo <laughs> lu ma xalaat seet loolu yombul ko parce que ku si nekk boo sañoon sa mbër di bëri tout le temps mm-hmm. mais li am solo rek mooy ñu jiital suñu borom ci lépp mm-hmm. xam ne suñu borom moom lu mu dogal rek loolu mooy am bu dogalee ne saison dañ koy toppalante di bëree te suñu ngembadu wow mm-hmm. loolu mooy am bu dogalee dañuy bëree tamit xaaraat kam d'habitude nañ ko ànd ak moom rek te nangu ko waaw te xam ne lim ñu may neex na may nañu wér may nañu aussi ñu am ak am ak am ak am ak imaan mais nañu ak dal ñu mën a ànd ak suñuy nawle te duñu sonn mhm. waaw kon loolu moo ëpp solo mhm. ma leen di wax ne seen mbër daal mu ngi nii di préparer wu pour toujours bëgg ci mbër yi ci kaw mhm. parce que dafa am lu ma leen dig te suñu borom moom xam naa ne dina am bés mu jox ma ko ma àndil leen ko mooy li ma dese si làmb dans jamais 203 <laughs> waaw te incha allahu rabbi dina ma sa am si kàttan suñu borom maa ngi nuyu ñëpp nag li ko daggee Ngor Wakaam Yoof Medina Gueule Tapée Fass rëbës jëndeer toor mbujjëm bayax puut waa daaro bari ñi nag yi xam ne falaa laa juddoo ma leen di bigg bu baax a baax a baax di wax liggéey bi ngeen nekk nii te combat sax amul am na ma yokk na ma confiance yokk ma motivation bu doy waar waa Sendou aussi waa Tëngeek waa Mbaaw waa Caare ji rek rek dëkkan ah. sama gars yi foofu maa ngi di bëggee. dina di wax waa yeen waa ñangal waa tubaab jalaaw waa ndayaan waa géraw waa Kaffrine nag ma di nuyu bu baax waa Kaffrine gi yëpp li ko wër yëpp ma leen di bëggee bu baax waa Kolda Tamba waa frontière Bissau Guinée ma leen di bëggee macha allah. Gambie sama gars di bëggee bu baax. waa Kofanting waa Casamance maa leen di bëggee. di bëggee ñëpp daal xam naa ne lim moom. ku lim moom doo juum mais doo matale quoi mhm. mais maa ngi bëggee mhm. ñëpp. di ziar ñëpp di leen wax naal na ñaan yi ñëw duñ si doyoon. Mhm. waaw combat moom bëgg nañ ko si lu mu gën a gaawee. parce que lii nelaw si lii bi te ñu xaw ko yee tuuti bëgg naa mu gën a yeewu. <laughs> mu mu naan mu jug toog. waaw mu ngi noonu. <laughs> Aïcha dañ koy remercier bu baax a baax moom Forza bu Fass di ko ñaanal jàmm ju bëree bëri waaye du ma taay di leen sant di leen gërëm national ak international Mansour national laa ak international fépp laa am ay soppe seen ñaane mu ngi ñëw conseiller mu ngi ñëw lépp maa ngi koy jot di leen ñaanal jàmm ju bare bare bare mais mën naa si dugal sama yenn mbër yi ma bëgg a fàttaliku ndax ñu ngi fépp ndéet ku ci mel ni Yékini Junior def naa ba mu xamoon bu réerul ndax mu ngi fi ku ci mel ni Malick Niang ñu ngi koy woo ci làmb ji mhm. pour ñu ñëwaat Yékini Junior ñu ngi koy woo ci làmb ji ay eh, garga mboose ñu leen di woowaat ñu ñëw ci daa ma a ji làmba ji namm na leen quoi làmba ji uh-huh. nuyu nag di sant bu baax a baax waaye 8 mars bi kon ma koy waxee maa ngi sant jigéen ñëpp su limee rek damay juum Mansour Fall jënd caméraman loo filmé bu baaxul dama lay bëggee bu baax a baax mañ pro kenn du yow borom shooting yi faama sama cameraman bi bëgg naa ci yow Alioune Badara suñu chauffeur bi damay kontaanee ci yow bu baax a baax a baax moomoo maa ne 100 pour cent assurance kenn du yow ci man ayca noonu la woon ak Forza suba ak beneen mbër incha allah ci beneen koñ ak beneen waxtaan jaajëf